Voilà, maître, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? avocat à la cour. Voilà, vous êtes venu euh, assister euh, votre cliente euh, Ndeye qui a été convoquée à la brigade de recherche de Faidherbe. Euh, quelles sont été les questions qui ont tourné autour de cette audition? effectivement, ce matin donc la dame Ndeye Touré donc a répondu à une convocation qui lui a été servie hier le 5 juin la brigade de la de Faidherbe effectivement et elle a répondu en présence aussi de ses avocats et je pense que les questions qui tournent autour euh, de cette affaire tournaient juste autour de son engagement de façon générale quoi de son engagement citoyen puisque bon euh, comme vous le savez Ndeye Ndak Touré ne milite dans aucun parti politique mais quand même et puisque elle Elle est une journaliste, elle n'est est pas journaliste, mais elle est très connue dans le milieu des médiatiques. Effectivement, donc, donc elle a euh, quand même un pouvoir, elle a un pouvoir quand même d'influence quand même. Elle est suivie par, euh, par des centaines de, de, de, de followers. Et pour cette raison, bon, si par exemple le Sénégal traverse des situations, euh, par exemple de politique, euh, des situations sociales, quelle qu'en soit la situation, Donc, elle estime la nécessité de se prononcer comme tout citoyen, hein, comme tout citoyen. La raison pour laquelle elle a eu à faire beaucoup de vidéos sur lesquelles, euh, à travers lesquelles elle se prononce sur euh, les événements qui ont eu lieu à se dérouler dans notre, pays. Mm. on lui a posé des questions et elle a dit que bon, l'essentiel pour ne pas violer le secret de, de, de, de l'enquête, elle a simplement dit que son engagement est soutenu simplement par, par un engagement citoyen. Mm. C'est justement cela. Mm. Et bon, on lui reproche, pour le cas de l'infraction, on lui reproche simplement euh, d'avoir posé des actes de nature à compromettre la sécurité publique. Mais bon, elle a été entendue, mais dans ses déclarations, et il n'y a aucune preuve aussi qui, a, qui lui a été opposée euh, sur la base de laquelle et sur la base de laquelle on peut euh, admettre cette, cette, cette, cette, incrimination. Raison pour laquelle euh, nous, nous restons confiants si nous demeurons quand toujours dans un état de droit. Nous restons confiants peut-être qu'elle va retrouver sa liberté. Si nous demeurons, je le précise, dans un état de droit, parce qu'elle n'a rien à se reprocher. Elle est sereine, elle garde son courage et elle est prête à affronter euh, sorte sortes parce qu'elle se sent quand même euh, innocente, euh, elle n'a rien à se reprocher Et donc, il n'y a aucune vidéo, déclaration qui peut lui être opposée, euh, dans, tendant le sens quand de poser des actes euh, qui compromettent donc la sécurité publique de ce pays-là. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul chef a qu'une euh, incrimination qui est visée contre elle, des actes de nature à compromettre la sécurité publique. C'est différent de l'appel à l'insurrection euh, Effectivement, c'est différent de l'appel à l'insurrection, effectivement. Et ensuite, euh, finalement, elle a été, donc après avoir été entendue, elle a lu avec euh, en présence de ses avocats et avec le commandant, elle a lu ces déclarations-là et elle a signé déclarations. Après avoir signé ces déclarations, on lui a donc euh, la mesure de garde à vue qui a été prise contre elle. Pour aujourd'hui Effectivement, pour aujourd'hui, voilà, c'est ça. waaw maa ngi euh, dellu si di wax leen tey si suba incha allah la fi ndaak ñëw ak ay avocats yi mu àndal man la ak maître Amadou Ali Kane ak maître Aïssata Ba bu ñu ñëwee ñu toog commandant bi toog laaj ko ay question bi mu ko laajee daf ko doon laaj rek lan mooy sa activité ndax bokk nga si parti politique ak yooyu quoi de façon générale voilà pour na pas kii mais jox na si ay réponse bu mu si joxe ay réponse nag lu laaj nañ ko lan mooy sa yitte ak lan moo tax ngay wax souvent à travers des vidéos ak yooyu mu ni moom dafa citoyen sénégalais comme ñëpp su gisee Sénégal nekk nekk si ay situation mu nekk ay crise sociale wala économique wala machin politique ak tout ça am na droit comme tous les Sénégalais wax si xalaatam jox si pour te moom aussi dafa am benn engagement citoyen quand même engagement citoyen mooy day wax sur la nature tout ça e n'est-ce pas avec la violation des droits de l'homme et des libertés su amee aussi day sentir obligation aussi dénoncer ko tout ça donc il est toujours dans cette si logique boobu daal la la la nekk quoi dafay firndeel euh, luñ koy waaw amul amul amul lenn luñ ko mën a parce que vidéo yuñ fi euh, amul daya sax puis vidéo bi am na déclaration yuñ ko wan mais déclaration waxu si dara ko jàmm rek la si wax. waa jàmm la sax lépp la nga xam ne day teeyal bon pour wax ni ne aussi ñi koy suivre nañu xam ne aussi euh, nday nag. Touré quand même ku ku ku xelam dal ah, amul benn problème gis naa ko léegi mais macha allah tiitul raflewul amul benn problème quoi xam na ni aussi dëkk yoon nañu nekk si fekkee dëkk yoon nañu suñ ko convoqué dina wuyu si te liñ koy laaj din si tontu te liñ koy lim si tontu yëpp ak liñ ko laaj yëpp gisul lenn la nga xam ne war nañ si mën a topp pour pour pour pour pour mën ko arrêté wala gàllankoor liberté am donc moo tax moom amul benn xalaat vraiment femme bu am courage la wax dëgg yàlla seetu naa ko yàgg fii nit yàgg na fi ñëw am yenn kii mais moom wax dëgg yàlla bu muy ñëwee am na benn courage bu mu wane am na benn sérénité bu mu wane xel mu dal quoi. donc ci lan lañ ko toppee. waaw si tënk daal li ko toppee mooy nga xam dafa jëfandu ay actes yoo xam ne day gàllankoor sécurité Sénégal daal. voilà sécurité publique daal mooy sécurité ma xam ñëpp ñoo ko bokk. waaw loolu daal lañ ko toppee. te loolu nag wax dëgg yàlla question yu ko posé ak vidéo yu ñu ko wane amul lenn lu mu si waxee la nga xam ne war waru ko wax wala mu def si la nga xam ne waru ko def quoi. waaw pour le moment dañ ko placé garde à mooy dañ ko tëyee pour le moment mi ngi si yoon léegi nag bu ñu ko téyee nag léegi peut-être fekkee dafa am yeneen question yu ñu koy laaj daañ ko woo woo ay avocat am ñu posé waat kenn ko fekk amul question yu ñu koy laaj nag léegi le commandant muy ñi nga moom moo géré enquête bi dina clôturer enquête bi après jébal ko procureur léegi procureur nag su ko defee moom mooy continuer procédure bi quoi voilà merci beaucoup ok je vous remercie jërë ngeen